moom tamit musul am adversaire bu mel ni man. bu dee xeex maa ko daax bu dee bëre maa ko daax. combat yi ma mës a bëri yëpp wallaahi combat bii ma jëm moo ma ci gën a neex. nga gis combat bu neex. barka alxuraan bu jëlee tànkam dugal ko sama tànk a mu lu a moom moo may téye. Arena la voix de l'arène le G5 un gala cinq drapeaux cinq grands combats. ci benn tàkkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena l'arène yëngooti na. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateur Equivox TV yi comme ni ngeen ko xamee du mën a ñàkk ak Babacar ak Yàgg Maar lamb lay doon. tey nag lamb ji ku ne xam ne dañoo biir dañoo bër di moyes li ko waral mooy weeru koor gi saxru ramadan weeru ngëneel loolu nag bi mu amee am na ci ñoo xam ne ci askanu lamb lañ bokk ñuy tudde seen bopp jeune amateur te góorandooy nekk seen président tey ñu woote fii ci pikin di def ay don wàcce kaamil ñaanal ñi génn àddina yàlla yërëm leen jégal leen joxe ay ndogu dimbale ay nit def ay social mu ñoom góorandooy ñoom Modou Roubé ñoom Nguy Jon ñoom Saliou Ba ñoom père Modou Bey maam jaara bu ngel jon Pape Sarr sa gis naa ko fi doomu pikin xam nga moom bu ma kaay Pape parce que yow bu ma nee salaamaaleykum pikin nga taxaw bala may wax ak kenn yow laa njëkk a waxal ndax biir pikin laa ñëw maa ngi lay nuyu di la di la baloo ak si weeru waaw ziar nañ la di la nuyu di nuyu tamit ñu ñuy seetaan ñëpp di nuyu suñu site bi waaw bii moom benn moom waaw benn du moom waaw uh-huh. waaw di nuyu ñëpp nag di nuyu di rafet di rafetlu lii uh-huh. lii rafet na trop dina xam naa dinaa ñëw beneen yoon waxtaan ak yow si làmb mais tey dama yemal laaj bi ci lii rek tey uh, weeru koor jeune amateur génne lu toll nii defar ay ndogu mm. dimbali ay nit social loo ciy wax en tant que koo xam ne da ngay dund làmb di sénégalais waaw ma koy wax rek képp ku bokk ci axlu làmb nañu bàyyi xel xale yi waaw jeune amateur yi parce que lii nii man maa koy doog a gis dégg nga ñii bu làmb amee du lii kese bal ñoom ñooy njëkk ci stade bi di bale di fomp siège yeeg yooyu noonu nañ leen jox cër bi ñu moom nañ leen jox dañ leen delloo seen cër yaa ngi may dégg fii du ay ay xale kese ay magam bi man sama moroomu papa ngi fii bëri na du si lii rek la ñu njëkkee dañ coo njëkkee ci Abibulaay njëkkee ko ci bale Baldé Junior euh, mooy euh, Jibi Ama dégg nga ñu gis liñ ciy def du foofu rek ay kase bu mbuur bëri na ma koy gis man surtout lu ma dugg pour ñëw lu ñu lu ñu gis fi koo xamante ne du fa muy Medina Géejawaay bépp ku fa am jafe-jafe ñëw ñëw nañu taxaw leen kon may wax képp ku bokk ci làmb muy Bira Sène na gestu ñii na na leen gestu ah jox teg leen seen place dégg nga man man man ñii ñooy sama président kii de. ñi ñooy sama président de góorandoo yooyu sama président de. yow ci góorandoo nga bokk. man ci góorandoo yi laa bokk. am nga sa droit. waaw ah, ci laa bokk de. ci xuloog yow tooñ. waaw voilà te nag maa ngi maa ngi dégg nag ay ay message yu ñu koy yu ñu leen di def yu ndaw maytuñ leen ko de. Ah. waaw déedéet seen amateurs yi dama koy wax mu leer dégg naa nag ku doon wax maa ngi xaaraat mu waxaat si si seen amateurs yi. ana góorandoo yi wool ma ko eh Gora eh, e góor kay tey Pape Sarr kookooy Pape Sarr doomu Pikine la maa ngi seen du Roubé mais maa ngi nuyu sama waa ji wulli wulli borom Linguère borom Kébémer kenn du wulli du Roubé voilà wuy ma waaw dafa am ñu ku génnoon di wax ci seen amateur yi ñu ngi xaaraat mu génnaat wax ci ñoom nañu def ñu mel nii ñu bàyyi wax ji dégg nga maa ngi leen di xaaraat xam nga licence laa yor comme ñoom maa ngi xaaraat mu génnaat wax. cey Pape Sarr kii mooy Pape Sarr. waaw loolu dafa leer Babacar ñu lay nuyu waaw. waaw lii comme dab rek lii miin nañ ko ñun parce que lii bi ñu koy def defuñu ko mu dara dañ koy def pour njabootu làmb yëpp parce que ñun ñun duñ duñ ay nit yoo xam ne dañ nekk si làmb quelqu'un di xeex di xuloo parce que lii suñu teraanga la suñu ñax la ñoo ko fi def sunu ñax lañ def ñun ñëpp lu waaye am ñu indi ko def ko parce que booy bi dañoo ko digoon muy nekk si feebar maam dañ ko digoon sees si yee far yàlla def antu ko mu méttu ñu lool nag mu doon booy bu baaxoon si ñun lu ñu xelu suñu amateur day teew ñu jom jom idée bi ñu ne kon idée bi kon lu tax mënuñu ko yóbbu buntu buntu këram woo mbokk Baye Faale mi ñu ngi ko doon bokk ay xaritam ay andi jàmmam ñu defal ko ko fi defuñu ko pour gis gal defuñu ko pour def daal dañ ko def lii pour ñëpp dañ ko def te yàlla tax te fépp lañ koy yóbbu dem nañ jàmm dañuy dem jàmm gën dañuy dem parcelle dañuy dem fépp parce que loolu moo ñuy war làmb moo ñu ñor ci làmb la ñuy dox. te ay loolu la fa deme am na solo kookoy Modou Roubé. maam jaara bu ngel joon per kay yow dóoral bàyyi ma dóor rek affaire yi moom na ku ne dóor rek defal nii taxawal nii yow maa ngi lay ziar. delloo tey moom borom daaru nga takk ca dënn ba takk lu net ya ma gis ni ay dund tege ay ceeb ay ndox diwlin ay omo mu mel ni ak sax ay yére mu mel ni tey jeune amateur tamit la ngeen daan def def ngeen ko mais daa mel yokk ngeen tey seen loxo de. waaw bonjour bilaay bisimilah inal wali yàlla ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di ziar ñëpp di naan leen lii mooy groupe whatsapp groupe whatsapp yi mën nañ jël ci li bon exemple royukaay nga gis nga tey suñu ndogu lañ def ñëw defee ko pikin ridis ko ñu Jules Balde Junior yàlla na ko yàlla yërëm xaree ko ay jana def ay ndogu def ay don yóbbu ko si daara yi néew du doole yi kon lii bépp groupe whatsapp war na jël si lii royukaay parce que lii geste noble la dafa rafet di ñaan nag yàlla na gën a yokk waaw. maam jaara Ibra bu sëñ Mbàkke Madina. Babacar waa ñu ngi lay fay nañoo bu baax te di la siyaare mel ni tey ñoo ngi fii ci Pikine Ridis ànd ak association de jeunes amateurs euh, doon wàcce kaamir yu am solo yoo xam ne dañ ko doon jagleel ñi nga xam ne dañoo dëddu. Euh, di ci jiital koñu ki ñu ko defee muy Sylvain Le Signor euh, ñoom Ilimane Sarr ñoom Père Balla ñoom ñëpp rek euh, buñ ci jógee nag ñu toog fii ay reer yu am solo yoo xam ne def ay don yoo xam ne dañ koy jagleel nga xam ne ñoo nekk ci ndaalay arxuraan yi loolu itam doon lu am solo loo xam ne ñu ngi ciy remercier président bi ak ñu toftalu ci ginnaawam ñëpp waaye képp koo xam ne yaa ngoon ci lam rek wàcceel nañ la kaamil tey ñaanal sunu borom njéggal ca barsaqi Muhammad ya nga tëdd di ñaan ñëpp sunu borom yóbbu leen ajana ko ci barkeb Seexul Xadim li xew lan la ginnaaw bu ñu nuyoo jël nuyoo bi nga xamante ni mooy nuyoo kilifa diine yi ak kilifa aada jox ko monsieur Matar Ba mu joxal ñu ko nga xamante ni mooy Bira Sène nuyoo bi nga xamante ni moom mooy promoteur yi ñu jox ko Pa Abdou Fall ak promoteur authentique yi ñu jox ko Dieye Sène nuyoo bi nga xamante ni mooy amateur yi Amidou mbay amateur authentique gis nañ ko fi waaye nag ñoo ngi nuyu bu baax du jànje ko waaye les jeunes amateurs nag. ñoo dajaloo fii tey jii woote ci jàmm ak salaam ak progression woote tey ci loo xamante ni luy jëme làmb kanam te du nag ci bopp bi góorandoo yi bi ngi ni toog ànd ak ñu war a àndal yépp di ñaan yàlla ñu duggee ko ci bisimillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin di ñaan nuyoo di ko jotele président ménager Basirou Babou di ko le écurie ak école de ñu jox ko mbay jàll mu wasaare ko les entraîneurs de lutte ñu jox ko ki nga xamante ni moom mooy Mbay Jàllo mu tasaare ko ci biir groupe bi waaye fàttewuñu suñu doom waa groupe baax fàttewuñu kenn làmba ngi nii làmb dafa rafet macha allah dama ni bés boo gis bés lay fay président Gora dama ko nii neex na leen nag fi ñu toll ni ngeen naan jeune amateur waaye nag fii ñu toll fii làmb toll ak seen liggéey toll bu la neexee dindi jeune bi ndax donte bu doon ñaari association la mën nañu benn bi moom mi ngi daw doxul na mi ngi daw kon gàcce ngalaama góor ak jeune amateur yi bu la neexee mais bu la neexee dindi jeune amateur bi mu des président rek des amateurs ndax lii rek lañu bëgg te làmb lii la soxla bokku ndey bokk bàyyi ñii bàyyi koo Bawol ñii Kajoor ñii Siin ñii Saalum ñoom ñëpp ñu bokk doon benn boole seen xol yéeneen sa jàmm bëggante kenn ku ne jël ci sa ñaq ñu jël li nga xamante ni mooy bésu tey bii def lii kon ku naan làmb làmb làmb da nga xamul làmb làmb ngi làmb baax làmb neex boo buggee stress mu deñ ci yow ñëwal ci làmb boo bëggee bég ñëwal ci làmb kon gàcce nga la ma waa jeune amateur gàcce nga la góor a di ñaanal nag yàlla ndax as adduwaawu silaawu muminin yonent yàlla Muhammad moo ko wax nee na ñaan mooy nga naan julit xool leen li fi am ñu ne làmb la ñu wàcce fi ay kaamil jàng fi ay xasiday si Ahmadou Bamba ñaanal ñi nga xamante ñooy way dawli ñëw ba ci buntu kër suñu doom Souleymane Jules Baldé numéro 2. boole ci nga xam ne alaaji Boy Bambara boole ci alaaji Balla Gaye Mor Fadam ak ku lim doo matal képp koo xam yaa ngi ci làmb ji te wàcc nekkoon ci suñu biir góorandoo yi boole na la ci xat xatmul quran bi kon yàlla na yàlla nangu yàlla dañ ko teewee ay déwéni déwéni déwéni déwén waaye nag ku lim ku tudd wala boog góor a nee na ma lu jiitu tey père man ko ah mu ne ma damaa bëgg nga defalal ma mention spéciale à géotechnique waaye dama ni wax seere da koy lal jo ngi nii kii moo jar a gërëm kii moo yeeyoo gërëm kii moo moom gërëm ndax def na li dafa pare soldat lam te tabe ba tabe jeex tabe ci sa daraja ca gën mënoon na la yónnee nag ba pare yónni délégation te ndaw loo gis muy ñëw xanaa xamoo délégation boo gis muy ñëw daraja ka ko yónni la yor su yónnee woon su ñëwee nga recevoir ko ni ngay recevoir rek géotechnique waaye dafa la jox li may jox pare sol dàllam ñëw toog te il la le kon gàcce nga la ma jo yow la làmb soxla dégg nga kon nag parrainage dama ni lu dul mbaax mbaax a ko gën jo mbaax fa mu jógee du fa jeex te fa mu jëm du fa doy kon lu dul mbaax mbaax ko gën yow baaxal rek ku baax baaxal ku baaxul baaxal rek yow baaxal rek yàlla na yàlla guddal sa fan léegi nag li ci des lii dañuy ñaan yàlla daa am fu mu jëm jazakumullah waaw yu was wis lii daa am fu mu jëm fa mu jëm mooy daaray alxuraan te yàlla dafa wax ni xam leen ma doog may jaamu xale yi nga xamante ni ñoo jàng xatmu bi nañ ci am yaakaar ni yàlla dana ko nangu ngeen boole ci waat nam jëlaat seen ñaq ndox ceeb dëwlin li gën a jafe ci jamono bii nga xam ne muy dund ngeen jëw dimbaliwu leen ko kenn lu xale yi nga xam ñoo ne ca daara di jàng alxuraan xam ne ëllëg ñooy nekk ci jàkka yi di ñu ñaanal yàlla bu yaakaar tas yaakaar rek moo yóbbu nit màkka da ngay dagg billet 3 millions 500 dem màkka te xamoo yàlla daka nangam déet waaye yow boo demee boo dikkee sa xel day daal da ngay jàpp ni yow yaa ngi mel ni kuy doog a judd kon lii am tey ji nanu rafet njort ni yàlla nangu na ko parce que jëmul fu dul ci alxuraan soo ba léegi ñu ngi jàng alxuraan di jàng xasaayit di yàlla nee na su ngeen santee ma dolli leen kon nañu sant ñun ñëpp alhamdulilahi rabbi alamin lu ñu woote ci làmb góor moo ci gën a sonn kon góor a su wootee bés rawatina bés mu mel nii di weeru koor ñuy ñaanal ñi nga xam ne mooy suñu way dawal yi dañuy lépp lu ñu jàppoon dañu koy bàyyi ñëw teew donc man dama fi teew en tant que président de CRI mais dama fi teew teewal fi waa ARELS muy association des écoles et écuries de lutte boo xam ni day yëngu ci wàllu lutte rek ci wàllu lutte lépp loo xam ni day jëmale kanam lutte ci lañ nekk donc góor a gëmal ne waa président Malick nee na mi ngi lay sant di la gërëm di la jaajëfal ci li nga xam ne moom nga taxawal. di di leen sant euh, di sant yàlla nag bi ñu mayee ñu fekkee bis bii tey ndaxte di ànd ak ay nit ngeen di jëflante bañ xëy jóge fi ngeen taxawal leen nii di dafay jëf ju rafet di jëfi jullit ku bëgg làmb dox. dina ñëw wax ak yéen dina ànd ak yéen dina jokkoo ak yéen man nag lii du tey ci ma du bis du première fois ci man man ak jeune amateur yi yàgg nañu yàgg nañ te waraf nee na lu yàgg dëgg la waaw fu ñu fu ñu geestu ma gis seen gannaaw bañ nañ ko ba waa ministère ak ñeneen yi nee nañu ah Amadou mbay moo gaa yi ñoo nekk lu gaa yi wax Amadou Mbaye moo leen ko wax ndox ragal féete day xañ wërsëg maa féete man maa féete bayin waaw maa féete ba sàmbarite dem ba waaw lu mu ci lu ko lu mu ci góobee ko gar ah, waaw waaw ah, daa mel ni kon ni ma leen ko waxee rek ñu ngi biir Pikine góorandooye ngi taxaw moor a ngi taxaw sigaa ngi nii taxaw Abdou Salam grand Modou Bey wala sax père Modou Bey ndax moom sunu papa la bokk na si ñu dalal baa waaye damay nuyu ki nga xam ne moom mooy kilifa gi góor a sax Ramadan weeru yërmande weeru ngëneel lii tey ngeen def ko mu mel ne tàmm ngeen koy def mais nag bii yoon daa dafa yokk da ngeen yokk seen loxo lu waral yokku gi. waaw Babacar sant yàlla bu baax rek vraiment boo gisee lii yëpp mën naa wax ni waa jeune amateur la suñu doole la ñu dajale def don yi nga xamante ni tey dañ ko fas yéene def muy une première. tey nekk première édition bi ñuy ñaan yàlla aussi tamit at bu ñëw rek gën a yokku vraiment ñuy sant waa jeune amateur yëpp li ko dalee ci vice président bi Ibra Diouf porte parole Balla Diop ak membre biro bi yëpp su ma leen limee rek mën naa wax lim naa ñëpp vraiment ñëpp jàpp ci liggéey bi ndax liggéey bi mën naa wax ni diggante bi ñu ko jàppee ak léegi jege na jege yaay boo xamante ni peut-être moo tax sax mu demee nii mais amoon nañu yaakaar mu gën a romb nii mais nag sant yàlla comme c'est une première ñu ñaan yàlla bu déwénee mu yokk di remercier jeune amateur di remercier suñu kilifa muy père du Bey vraiment taxaw nañu suñu place palaasu kilifa di sant axlu làmb yëpp nag parce que lii boo gisee ñu def ko mooy dañ ci boole ñëpp yamale ko ci amateur rek invité nañu promoteurs yi invité nañu mbër yi nekk en activité jiital nuyoo euh, invité bi ci seen président muy Gris Bordeaux ñoom ñëpp ku ci nekk dem nañ sa kër jox la sa lettre peut-être na xëñ na lamb moom yaa gën a xam mais ñoom ñëpp invité nañ leen te ñun amateurs jàpp naa ne bu ñu wootee fii tey kenn fi war a foon xaj parce que ñoom lépp lu ñu nekk rek ñun ñu ngi ceeg ñoom ñun dem nañ ba amatuñu mbër ñun ñëpp suñu ay mbër lañ ndax dañoo njaboote ñëpp tey lii ñu indi fii nii muy don yii nii ñu fas yéene ko yóbbu ci daar alxuraan bi fas yéene ko yóbbu si jàkka ji sant yàlla la ndax yaakaar naa kenn amul fii lu gën alxuraan ñii nga xamante ni tamit ay way dawlu lañu ñu fas yéene leen a tey ñaanal leen ci alxuraan fa ñu tëdd seen xol sedd na ndax nit boo nee ginnaaw amul lu ëpp ñaan vraiment ñu ñëw defee ko fii nga xam ni mooy kër ñoom Jules Baldé Junior nga xamante ni suñu frère la woon ñu nekkoon ak moom daaw ci heure bii la dogal tey mu wute ko ak ñi nga xamee génn nañ ci làmb ñëpp boo nee Jules Baldé Junior limaale nga Papa Yade limaale nga père Mor Fadam limaale nga père Aline Seye limaale nga père Boy Bambara limaale nga père Balla Gaye 2 limaale nga Boy Lo limaale nga ñi nga xamante ni ay membre la ñu woon nekk jeune amateur ku ci mel ni Aline Sa Aline Ilimane euh, ki nga xam ne mooy Ndaraw ak ki nga xamante ne mooy xaar bu Cambérène yaa may dégg ak ñi nga xamante ni ñëpp génn nañ àdduna ci làmb ndax ku ñu xool fi ñu perdu yaaykat yi génn na ci làmb bëri na tey jii ku ci mel ni ñoom booy bambara ñoom ñëpp génn nañu tey ku ci mel ni suñu papa Thione Seck ñu leen di jaale di ñaan yàlla suñu borom yàlla leen yàlla jégal seen ay bàkkaar te leen ci àjjana yi gën a kawe mais daal li wax ji li ci gën a am solo mooy lii ñoo ngi koy kontaane ndax fii tey ku fi ñëw rek man ak Abdou Salam mii nga ñëwal ndax ñun ñoo fi dëkk vraiment nekk ay amateur mais tey lii sigil nañu suñu ay biir mbokk ndax dañu daan jógee fii di dem làmb tey xam nañu ñi ñuy fekk ji ay nit lañ ndax lii nii vraiment yombul vraiment di gërëm aussi tamit jo technique ndax jàpp na ci bis bi jël na teranga gu rëy. moom dégg naan nag la leen jox ah. nag bu cher la ñu jox vraiment ak monsieur le ministre Matar Ba moom it jàpp na ci jël na enveloppe bu dëgër jox ñu ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biir làmb di ay acteurs ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla lii nii yàlla nañu yàlla di kuñ ko mën loo chaque année ñu koy gën di mën di def di ñaanal ñi fi génn eh, gi tamit Euh, yow defe naa ne comme li may wax rek yàgg ngaa jàppale waa làmb ba tey nga ànd ak ñi ñu say doom geste bu mel nii loo ciy wax. Babacar xanaa mbégte kontaan rek xam nga yow yow yow yow yaay lépp kontaan nañ trop kontaan ci association bi daal kontaan ci góor a ko baax la waaw di ñaanal Jules Balde junior nag ñun loolu moom mu ñal di koy ñaanal Jules Balde Jules Balde dañuy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm ak ñi fa fekk ñëpp di ñaanal booyloo yàlla yërëm leen aji dawlu yëpp yàlla yërëm ci barke weeru koor kontaan nañ ci association bi lii mooy làmb dañuy ànd mbooloo bokk ndey bokk baay juboo yéenante jàmm Sénégal jëm kanam jërëjëf Equivox <laughs> jërëjëf merci Balla Balla yow yaay porte parole yow yaay porte parole groupe looy wax yow tamit waaw Babacar ñu ngi leen di siyaare di siyaare képp koo xam ne ne yaa ngi ci làmb rek di leen jox seen wàccuwaay di xamal ne lii geste bi waa jeune amateur def defuñu ko ngir seen bopp rek dañ ko defaat rek képp ku ne ci làmb rawatina tamit ñi ngi sant di gërëm ministre des sports monsieur Matar Ba ñu ngi koy sant di gërëm zone technique di gërëm yen presse bi ñi ngi jël nuyoo bi di ko teg si loxo nga gërëmal ñu ñëpp di sant da ne suñu wootee te ñëwoo leen day du safe te da ngeen ñëw yéen ñëpp ay seen yitte te lii dañ ko def chaque année lañ ko daan def mais ren dafa changé te bu déwénee incha allah lay gën a changé ñi ngi jox jaayante lañ doon def suñu biir kenn ku nekk da nga li nga mën ak li nga mënul nga def ko tey joxe tey joxe joxe ndogu ci weeru koor dafa doon loo xam tiyaaba la ñi ngi gërëm promoteurs yi promoteur bi ci mel ni Baba Diaw ak Jamaïcain gis nañ seen loxo tey ñëw nañ ñi gërëm tamit ki ko mel ne Abdou Lahad Ndiaye jàpp na ci bu baax a baax a baax suñu limee daal dañuy juum mais ñi ngi gërëm képp ku ci làmb te lamb ñun nee naa leen ñëw ñu ci làmb ñu xaj a xeet dañoo ñëw di boole te seentu asamaan jarul buuxante te làmb dafa yaatu groupe baax a fi xew-xewu làmb a ngi fi euh, ba ñu sax axlu làmb a ngi fi ñëpp benn lañ ñëpp ñu ñëpp c'est la famille gis nga dina ñàkk bis dañuy invité groupe baax xew xew invité làmb xeetu ñëpp ñu bokk daje toog waxtaan bëggee da xam ne làmb moo ñu boole waaw. mu mel ni kon seen amateur comme niñ ko waxee rek yaakaar naa ne dégg ngeen li góorandooy wax Balla Diop Père Modou booy mu mel ni lañ doon def muy ay sast fii lañu ko indi wala boog bokk na si daar yiñ ko indil kilifa gi wala papa maa ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay delloo nuyu di la wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. tur bi Mansour Fall. Mansour Fall. Mm-hmm. imaam Mansour Fall. Euh, <clears throat> ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di leen wax tam ahlan marhaban ahlan wa sahlan ñëw ngeen ci seen kër ñëw ngeen ci seeni i bokk ñëw ngeen ci seeni i ñoñ fa tabaarakallahu ah lii tam yéene bu rafet la jëf ju rafet la te lu lislaam nangu la lu xel nangu la lu diine nangu la jël ndimbal loo xam ne lu ñuy suturloo la wala ñam wu ñuy lekk wala yëre yi ñuy sol dem ca daara ju ñuy jànge alquran ñu yóbbu ko fa ah loolu bokk na ci li nga xam ne luy dëgëral la ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne al madaarisu xablal masajid balaa ñoo dem ci jàkk ji jàkk ji baax dañuy njëkkee ca daara ja te itam balaa nga ne naam ne fa ah, li ngay lekk su fekkee ne amuloo lekk amuloo foo tëdd amuloo néeg boo suturloo kon la ngay def defin wa du rafet wala dana xaw a doy waar kon nag kilo fekk fa nga nekk di jàng téere yàlla bi mu di dimbali ci loo lekk wala mu lay dimbali ci loo sol wala mu lay dimbali ci loo naan wala foo tëdd kooku bokk na ci ñi dimbali alquran te itam wax dëgg yàlla ñun njabootu yàlla lañ ndax yàlla waxoon na ko ci hadisu qudsi yi ne eh, ñiy jàng alquran ñooy ñoñam waaw ñoom la bokkal kon fa tabarakallahu te diini ji nag ci alquran lay dox bu alquran ji taxawee rek diini ji taxaw kon yal na yàlla dëgëral leen seen yéene ji na ndax yéene dafa rëy euh, niyatul abdi ablaxu min amalihi yéene bi mu ëpp doole euh, jëf kon fa tabaarakallaahu yal na yàlla àggali te mm, defal leen tawfiix defal leen taysiir e, yàlla def ñi nga xam ne ñooy jàngatam euh, yàlla àggali seen àllu te def ci barke bi jaahi rasul tey tey su ma la laajee parce que ñi ko def nii ay sénégalais lañu ay jullit lañu. mais dafa am sport bu ñuy dund ñu koy wax làmb. moo leen dajale ñoom ba ñu xamante. bay demlante di jëflante seen biir ba jëflante boobu. yoo yóbbe leen ñoom ñu dajale seen ay alal seen doole seen xam-xam. dimbali tey ay daara dimbali ay doomu aadama. Euh, loo leen di wax tamit parce que am na sport bu ñuy dund muy làmb muy passion di sport réew mi. waaw làmb moom day day paw day cosaanu réew mi làmb moom ñun ñii. nga xam ne dañu yaroo ci daara àll bi maa ngi koy wax barki démb rek xale yi di ree am sama benn sët bu ma doon tooñ ma ne ko yëguloo ne man mbëru làmb laa man dama daan bëre waaw maa ci àll ba dama daan bëre wa tabaarakallaahu euh, sport la boo xam ne suñu aada la suñ culture la fa tabaarakallaahu ba demee ci àll bi ñun suñ waan suuna bu ñu bu suuna ñoree bañ dam bañ mboq yi dañuy làmb di làmb ba ba gerte yi ñor kon foto tabaara paw góor la tàggat yaram la kon fa tabaarakallaahu ña koy def ah mu bañ a wuute ak ni ko lislaam di gisee ah, ah, ay ñaari góor ñooy dajee di fo ah ay góor di taxaw di ko seetaan loolu moom euh, lislaam mënu ca am lu muy kafin xanaa fa tabaarakallaahu ñu rafetlu ko te itam yëngatu la boo xam ne bii ah euh, lu mën a jàppale xale yi la waaw yëngatu la boo xam ne xale yi ñu ngi ci gis seen bopp ah fa tabaarakallaahu yal na yàlla dëgëral leen yal na yàlla taxawu leen bi jaahi rasul. daara ji yan jafe-jafe nga ci dund fii ci daara ji bu dee am na ay jafe-jafe. waaw jafe-jafe day moom bari na wax dëgg yàlla waaye nag bi ci njëkk daal mooy nekkuwaay bi maanaam waaw nekkuwaay bi maanaam néeg yoo xam ni xale yi mën a suturloo la moom moo xaw a des. Ah, am nañ nag fu ñu mën a kafine waaye nag xaw na des war nag wii itam nga xam ne ñu ngi ciy suturloo am na waaye yàlla bu fi ñëw moo ñu ko tabaxal waaye bi mu demee ba fii nag man manam dafa taxaw. mënatu la dem ba ñun sax daara ji dajale woon nañ ba amoon fi cent mille waaye biñ calculé li ko war a defar deux cent vingt cinq mille la karo yeeg yi ko war a mottali ak bunt yeeg yooyu moo ko taxaw taxawloo waaye daal euh, wan nag wii daal moom ñun ñu ngi dajale suñu kees fas yéene mottali ku ñu ci mën a jàppale jàpp ak mu gën a gaawee ndax soxla nañ ko lool fa tabarakallah waaw fa tabarakallah waaw tabarakallah Jules Baldé tamit euh, mbari la woon dëkkandoom la woon newoon ci koñ bi defe naa ne nga ko bu baax. yal na ko yàlla yërëm taxare ko aljana. waaw xamoon nañ ko wax dëgg yàlla xale yi itam moom tabaarkalla miinoon nañ ko wax yal na yàlla yeesal yërmande ci moom yal na yàlla may ko bi jaahi rasul ci lu gàtt rek góor a defe naa loolu mu appel bi mu lancé tamit donte indi ngeen lii mais defe naa ndimbal du doy te wax na ci wanoogu ak yeneen yoo xam ne soxla nañ ko defe naan loolu tamit di ngeen ci gën a dugal seen loxo xanaa. waaw Babacar vraiment di sant yàlla bu baax di sant kilifa gi nga xam ne moom lañ fekk fii ndax ñëw nañ fi tey ci bëccëg vraiment mu recevoir ñu dalal ñu lii mu def tamit vraiment lii la ñuy séntu ci kilifa vraiment yiir nañu wax na tamit waxu waxu responsable doléance bii nag mu ñu proposé nga xam daf ko bëgg incha allahu rabi teggil nañ la ko loolu ngeen jotoon dajale defaat ko ci daara ji incha allah dinañ jël engagement dinañ defar dusi dinañ defar lépp loo xamante ni mu ngi fi ngeen amoon ci ay jafe-jafe pare nañ pour taxaw pour defar ko incha allahu rabi parce que tamit ñun amuñu lu gën alxuraan bii ngeen di jàng fii kon lii ngeen di def nii ñun ngeen koy defal kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan yàlla xale yi jàng alxuraan bi ñuy jàng yàlla na leen ci yàlla defal ndam defal leen suutura defal leen tranga di santaat ñi nga xamante ni tamit moom lañ jàngal kay kaamil yi muy ñi nga xam mondolaa li bi nga xam dañoo génn àdduna ñu ngi ñaanal ñëpp bu ñu limee dañuy juum ñu ngi ñaanal képp koo xam nekkoon nga ci làmb ak képp kuy jullit te tëdd si biir suuf yàlla na la yàlla yërëm te xaar la àjjana di ñaan aussi lii première édition bi la ñu ngi ñaan yàlla chaque année rek yàlla gën ñu ko mën loo ñuy gën di ko mën di gën di def te at mu ñëw rek yàlla na dàq bi wees ñu ngi sant ñëpp di gërëm jeune amateur di sant ñi ñu jàppalee ci bis bi yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf jërëjëf am adversaire bu mel ni man bu dee xeex maa ko daax bu dee bëre maa ko daax combat yi ma mës a bëri ma jëm moo barka alxuraan bu jëlee tànkam dugal ko sama tànk yi boobu lay gëj a maa ko daa ko fuuf daa ma ko bëri ndànk sax danaa ko damm ba toog ci kaw bu fekkee dafa am fu moom lu ma bëgg a wane du maam Lamine moom moomay téye Vox Arena la voix de l'arène le G5 un gala cinq drapeaux cinq grands combats ci benn takkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw